mu def lu mu wara def jël defé tay ba tëgal ko tëgal bu neex mu fecc fecc lu neex mu jël defé lol la nga ci wax vraiment jambar la lu koy wax nit ñi ñàmbaaram dëgg la papa euh, tey mën mën du sax du la lamba lamba lamba ak ni ngay la lépp ni ngay bëri rek. waaw di di ñaanal di ñaanal Siteu. naa ko naa ko frustration quoi. waaw naa ko frustration. waaw yàlla na ko ndam bi. jërëjëf loo wax Papa Sow. loo wax Papa Sow. mais mais Papa Sow. ah loo wax Papa. waaw Papa. mu defarwaat. di ko mos a wut. waaw di ko mu defarwaat. voilà lii ñoom mooy dàq. lii ñoom mooy dàq. jërëjëf defarwaat. jàmbaar la gaa. métti hmm. na. waaw. métti na mais mais mais na am xolu bu jërëjëf